yaa ngi dëkk biir Yoff xam nga ne kaw tali yi nu mel nii dafa xaw a doy waar kaw tali yi bëri na encombrement bu dina ay oto bu dina jaaykat yoo xamante ni ñu ngi nekk si kaw tali bi daanaka population bu ñuy dox tali bi sax daanaka bu ñu dox bu ñu dox si dañu wàcc si si tali bi te loolu daanaka danger la boo ne wóorul xale yi daanaka si kaw tali bi la ñuy doxee loolu moo tax euh, monsieur le maire Seydina Issa Laye Samb dañoo nekk si période boo xamante ni dañuy déguerpir jël table nga xamante ne ñoo ñoo nekk si kaw tali ak ñi nga xamante ne dañoo def euh, dañoo nekk oto yi nga xamante dañoo gaari si kaw tali bi yàgg fi loolu instant bi ci loolu lañ nekk nii di def xam naa nag une semaine lay am incha allah rabbi Euh, loolu daal lañ nekk di di di liggéey nii te population bi population yow faa bi rafetlu ko lol macha allah ndax dina gën a may tali sécurité dina gën a may euh, population bi sécurité bo xamante ne daanaka dinañ na dinañ nekk si cadre de vie bo xamante ne dinañ dem dinañ mën a ñëw mais avec euh, niñ ko bàyyi woon nii moom wax dëgg yàlla benn insécurité le bo xamante ne baaxul si population bi dal tax daal ñu ngi wax suñu maire suñu xarit mooy Seydina Sall Samba gàcci ngaalaama si xalaat bi nga xamante mu ngi rendre population bi tey population bi macha allah rafetlu ko te andi ci lool sax macha mais ak population bi nii ni ngeen jëkkee nii jug nii ndax joxoon ngeen gars yi avertissement ndax duggoon ngeen secteur par secteur waxtaan ak ñoom. parce que am na ñoo xam ne amuñu conscience ñii ñu ngi koy jàppee safar nii ñii ñu ngi koy jàppee lu métti loo xam mhm. waaw ndax boo xoolee euh, monsieur le maire defoon na déclaration moom defoon na sax benn vidéo boo xamante ne vidéo la ko def defar def nañ information bi dugal nañ ko fu nekk loolu moom daanaka du ma sa jàll ndax jàll na te en plus euh, waa service technique éléments yi wàcce nañ ci terrain bi joxe ay sommation xëy xëy def ko ndax daanaka loolu du yoon ku si nekk dem nañ jox la sommation ne la bis sàngam dina ñëw léegi nag dafa dafa dafa am ñoo xamante ne daanaka dañoo xaw a doy waar di di di am lu ñuy wax mais xëy ñu xëy ñëw wàcc nañ bu yàgg joxe ay sommation ne bi sàngam dina ñëw kon naka daanaka ñun suñu warteef def nañ ko léegi nag seen warteef moo def mais ñun moom li ñu war def nañ ko. Mhm. Mhm. am na ñu mhm. ngi incha allahu rabbi ndax euh, boo xoolee loolu am na ay waxtaan yoo xamante ne daanaka euh, ñu ko si def bu baax service technique bi mu ngi koy def baax incha allahu rabbi te loolu noonu dinañ si baax ndax boo xoolee ñëpp xam nañu yoof léegi insécurité bi dafa bëri euh, yi fi nekk dafa bari mais loolu yëpp maire bi maire bi mu ngi si xalaat ay doxin yoo xamante ne incha allahu rabbi fiyax ay jamono ñu si taxawee rek ñëpp dinañ gisal seen bët ne insécurité boobu si yoof dina wàññeekoo bu baax incha allah incha allahu rabbi jërëjëf jërëjëf asalaamaaleykum ñu ngi ziar ñëpp man la soxna Ndeye Maguette Sène euh, présidente nationale de Yaay Jàmbaar dëkk euh, Est ñëw nag fi euh, taxaw fii ci yoof fekk fii samay doom ñu ciy liggéey ma ci bëgg a sànni ñaari kàddu. <laughs> waaw man de changement bi ni ma ko gisee dama ne alhamdulilah rabbi alamin te ñun jigéen ñëpp a ko wax nag ak ndaw ñëpp ndaxte Seydina Issa Laye mii nga xamante ne moo jiite commune de Yoff bi mu fi ñëwee ba léegi ñëpp ci gis seen bopp parce que euh, Yoff dafa yaatu léegi dafa boot Ouest noor Nord Foire euh, virage boot ay dëkk dëkki dëkk euh, te quartier bu nekk laaj lii ñuy def fii te xam naa ne dinañ fa eggi ndaxte teretoire territoire amatut amatut boo bëggee tabax da ngay tabax ba nga xamante ne bu nit jàll du jàll mag ñi ñii dañuy dox di soox ñi seen tànk di metti ñi nga xamante ne danoo yittewoo loolu ñoom de alhamdulilahi rabbi alamin lan wax yàlla na lii yàgg te yàlla na sax mais nag na am suivi nag li am solo mooy mu am suivi parce que liggéey da nga koy topp doo ko déjjati tey suba ñu ñëw tegaat ko fi nga bàyyi ko fa loolu rek la ñu xam ne daal ñun rafetlu nañ ko ñun waa Yoff waaw. ñun de yàlla mi ma tiim xam na ne euh, gis naa ne euh, jeunesse de Yoff jóg nañ pour ànd ak commune bi liggéey Yoff parce que lu tax ma wax loolu euh, mag laa te samay âge xam naa ne mayutuma pour may wax lenn lu jariñu sama doom wala sama sët te sedd Seydina Issa sama doom la. xam nga tey jii jeunesse bi bu fekkente ne li nga gis fii ñu sol ay gilet ak ñi civilu ñoo ëpp kenn ku nekk préparé sa buntu kër ne sama papa lii fi nga kii nga luyee na fi dégagé ay bagages am ba lu bëri fekkuñu ko fi kon jeunesse bi ñu ngi liggéey fas yéene nan ànd ak moom waaye jeunesse bi yemuñu ci loolu danoo bëgg ànd ak Seydina Issa ba Yoof mel ne ville yi gën a rafet ci àdduna bi te mën naa ne ndax Yoof ki fi teud mo ñu may ñu mën fe am 1 mètre yoof ki fi teud mo ñu may ñu mëna dégg batu la ilaha illallah kon na ki fi teud jarna lepp lu fi bokku ñu génné ko fi waye lepp lu koy taral jeunesse bi and ak ñom ñun jigéen ñi dal takku nan ma ngi wax ci kaddu euh, mouvement yépp te buma ma buñ ma gisee dina xamné war nañ ci wax pour ñu and and ak sayidina isa mu and ak programme and ak programme ndax ndaxte lepp suñu njariñ la te suñu njariñ moy suñu njariñu do moy suñu njariñ set alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh